والي سوي النعال وسلبه وكرمي صل على باب الهدى ناي المدى مهل الندى صل على من جعل خير النبي الفضلا حين أبونا جدلا في ديني وعزمي وسلما يا ربي على غدام الأنبياء والمرسلين الأصفياء إمامنا المعزمين wasalli yaa sa nixmati ala rasuli rahmati mixlaaxi baabi nixmati sababi kulli nasami wasalliman yaa samadi ala nabi muhammadi wa alihi walhummadi wa kulli si tarasumi يا سلبقا والخدم مني تخاب الخدم والترلس تخدمي بيا منير اللقم 96 bi alaaji ndaama fobee cër bii tudde ko Serigne Baara yóbbu carte wi jox ko Serigne Sidi Maxtaar ja yàlla na yàlla dolli yërmande ci moom sëriñ Sidi Maxtaar moom mii la woo sëriñ Bas jox ko carte wi boo alaaji jaaja mbay ñu ñëw fii ci Touba te lu jiitu loolu alaaji jaaja ak alaaji ndaama la kon alaaji jaaja jërëjëf kenn mënu laa fay yàlla na yàlla guddal saw fan ñoom ñii nga xam ni yow ak seeni baay la woon fàttewun dara ndax 78 79 fekk nga ko kooki ay bëtam di metti moom mii mu wànneen nga yërëm ko lool ànd ak alaaji may sa njaay booba jamono booba booba alaaji may sa njaay dafa def ay robinet kokki may ko waa dëkk ba ñëw fa di ko visité ci ànd ak alaaji jaaja ñëw kokki ca daara ja sëriñ Modou Sakhir Lo ma ngay dund ñu dugg daaru salaam fekk ko fekk ñu jéng ko moom mi ay bëtam di metti mu ñëw yërëm ko wax ko sëñ xaadim sëñ xaadim da koo ree alaaji jaaja tiit nan laay fekke sa doom ñu jéngu ko ay bëtam di metti jàpp naa ni bët yi day yàqu ma wax la ko ngay reetaan sëñ xaadim tontu ko lam ko tontu xam na ko moom mii xam na ko sëñ xaadim xam na ko kon alaaj jaaja jërëjëf sëriñ saaliwu sàmm ñépp lay bëgge Touba Fall lu fi nit def jëlagul kàddu dina jël kàddu day avant première rek yow saaliwu ñépp lay bëgge masaalikul jinaan a nga lay xaar keesa nga lay xaar waaye boo tàmbalee fii sa léppay barkeel jërëjëf bis bi tur wii alaaji ndaama te yëg na ko fa mu tëdd waaye gàcce ngalaama njabatuk alaaji du Mbaye kenn desul bàcc may mag xaadima nga ne feggoog rakam lam ñu fekk fi seen jigéen soxna ngay tambay ak njaboot ga yëpp dinañ ci delsi teraanga ji mbubb la mun ñaw xaadim mbay jox ma ko ni xam nan diggante alaaji ndaama ak Baye Modou Mbaye waaye ki leen ñetteeloon doon alaaji jaaja di seen wóolëree ñoom ñoo def teraanga gi di ko ñaanal mu sut leenu fan te yàgg seen ginnaaw yàgg fekke jataay bi lii garaam boobu la Xaadim Mbay moo ko jox boroom kër gi di alaaji Cheikh jeng di nijaay ci alaaji Ndaama di mag ci alaaji Ndaama di goro ci kër gi di waajuru Ami Dieng mi nu dénk dan di koo xamante ni li ma wax ci dan mën naa koo wax ci moom gàcce ngalaama bu alaaji ndaama des woon du ko jéppi ndax cërub alaaji ndaama ak cërub boppam la boole ñaar yëpp toogee ko ci jataay bi yàlla yàlla guddal fanam kon mbub mii Xaadim Mbay moo la ko jox Pa Cheikh jeng sa wóllëre sa xarit lan koy jox mu jox la ko Xaadim moo la ko jox jox la ko ci turug njabootu Alaaji Moodu Mbay gépp ñoo la ko sargale ci bisub Alaaji Moodu Mbay bi xam nañ sa digganteek moom xam sa digganteeg Alaaji Ndaama yàlla na yàlla guddal sa fan moom laa yaakaar sëriñ moo day saay sama sëriñ mooy sa waajur yaa fi ne bu ma la nuyoo nuyu naa njaboot sëriñ Tuubaa gépp xaadim maa ngi santaat yàlla bu baax du gudd ndax sori naa teraange bii moo ma yëngal yal na ko yàlla dolli wér xalifa kër gi di sëriñ Baara Fall daf daan toog moo Moodu Mbay sëy na bu toog doomu ndeyam ji Alaaji Ndaama Mareema toog bëggante ga àndante ak bokk ga mbay jàllo gii waaye nag askan bi sant loo di diggante Marema Seynabu Aliyu Loo mi jur maître Loo avocat à la cour allah ji ndaama li nga wax ci dan wax ko ci Ablaye Ndiaye Moodu Mbay mu mbaax moomu jaar fa ci ngaay ca Nimsaat ca Ndakaaru ba Abidjan ba tukki am sori naa lool de alaaji ndaama ma Moodu Mbay tudde woon ndaama moom ak ñoom bàcc ñi ngay wax ak ñu fi nekk ñépp maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla di wax nii alaaji Moodu Mbay de billaahi xolam sedd na ca Tuubaa néeg ba nu bokk fanaan man ak moom ak alaaji ndaama ci la ma wax ni ma xale yi dinañu la ñëwal mubb xaw moon ni nii lay doon xaadim jërëjëf mbay yal na la yàlla teg xaadim sama xel dal na maa ngi santaat yàlla bu baax ñii jaar defe naa programme troisième la war a doon ci la sidd digganteem ak doon jeeg ci la compte am na passage bu mu doon wax au rage au désespoir au vieillesse ennemie man ma vieillesse ne pas ennemie puisque ça m'a permis de connaître et de savoir deme quelle sera yal na nga gudd fan yal na nga yegg ki tax nga tax nag bu la taxelee ba nga tax war ngaa taxaw ni ko yaa tax mamandan jërëjëf Abdoulaye jëwriñ fii ngeen teg xaadim du xaadim alaaji ma ngeen fa teg li tax ngeen teg fa alaaji ndaama fa ma tegoon du gudd ndax ñëpp dañoo yàkkamte saaliwu sàmb ca fii mu ne damaa jaxasoo sëriñ bas mbàkke yëngal na ma ndax sama xarita sama sëriña père dangereux ak fils dangereux rek lañuy ñuy woyante loolu am na lu tax sëwxa la kër gi yëpp li ko tàmbalee ci dam mii comme ni ñu ko waxe ba ca lee xadiloo mujj am cér bi benn la considération bi benn la euh, damay bàyyi Serigne Saliou mu dem ba ca kanam ndax sori naa alaaji Cheikh jërëjëf Dieng mat nga ji ndaama doon nga alaaji ndaama bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi laa wasalatu wasalaamu ala man la nabiya baadahu sayyiduna muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin wa radiyallahu an seyxina ahmadul xadim wa ala xudwatina al azim maam Cheikh Ibrahima Fall babul muridin barkeb Cheikh Abdul Karim Mbakke faddinu ñu ngi sant yàlla di julli ci sayyiduna muhammad di feddali suñu kóolu teef ci seexul xadim di balu xàq bokk yëpp di leen baal tey ñaan yàlla sans borom boo leenu jéggal di ñaanal Cheikh mun Mountakha yàlla yàggal ko fi te mu ànd ak wér waaye di ñaanal borom kër gi sëriñ Mamor moom ma Massamba Mbacké yàlla sans borom yàggal ab taxawaayam te wéral ko moo mboolem ko mu jaboote di ziara mbooloo mi bu baax waaye di ci jiital sunu sëriñ di jëmm joo xam ni nii ko Baye Jaaja Mbay waxe seen diggante ñoom ndax tund Kébémer wi ak sëñ xaarim aw ba loolu jiitu na sunub juddu ñun waaye moom mii de Baye Jaaja ñun ay taalibey sëriñ Touba yu nekk ci yoonam wii di nab nabi lanu waaye gàccee lu nu fenn moom mi tuutalu nu fenn waaye di loowu nu fenn fu mu teew jox nañ ko cër bu yàggul dafa am déclaration bu mu def moom mii bi muy def déclaration bi ma am ñu ma toggal ñu koy xoolandoo ci internet bi ñu daan sëñ Basiru de def na déclaration xam naa comme man porteur de voix la mooy sa candidature comme man porteur de voix la ñi ma toogal ñëpp dañoo daal di xool ma laaj lu may wax ma ni man Saliou de ki sant Mbàkke laay àndal ak lu mën a xew man lijjantiwuma la ci des ndax man kenn rek laay seet mooy sa te yow sagal nga nu wallahi wa rabbil kaabatil musarraf su ma la mësul woon a jox loxo te nga sant Mbàkke déposé candidature ma ànd ak yow man ndax man sëñ Tuubaa laay seet benn bët laa am sama laa koy xool ku sëñ Tuubaa gërëm maamam te santul Mbàkke nu mu mën a sant bu demoon ca ñooña ma fekk ko man ma laa nag koo xam ne bu sëñ bi amul woon du am moom mii kër sëñ xaadim awa ba moom mii moo yor kaddu ga sëñ xaadim awa ba sëñ mhm. dëgg la sëñ ba ba dëgg la continue kon barkeb sëñ baara baak boobu sëñ xaadim awa ba yëpp yàlla na sëmbaratalu ci sa kaw ñun mbàkke nga gis ñu ak gisoo ñu na la li nga nekk ñoo ngi loolu laa lay wax fii ma toog bu ma wéetee moom laay wax ndax man xam nañ ne man du ma ñaari façon fi may gis nii benn couleur laa bu ma lànkee ma lànk laay wax waaye yéen seen alal lañu amuñu ñu dul yéen ñun ndax borom tubaa rek lañu bëgg ñun moom la ñuy seet kon ñoo ngi ci sa biir ci boo ñu gisee ak boo ñu gisu lu nu man ci sa yi rek baatin dinañ ko def ñu ngi ñaan yàlla nag mu may la ay ndam loo bëgg nga amee ko nu kawe sa njort ci barkeb na ko sa maam ju baax ja ñaane woon yàlla te mu may ko ko noonu waxoon ni listajib daawati bi maa faaxa danni waaye wa bi maa faaxa rabbi kulla zunuuni yàlla na la dale noonu ci barkeb sëñ Baara Mbàkke barke Cheikh Amadou Bamba noo ngi kontaan ci yow buñ la gisee ak buñ la gisu may nuyu sarak yu baax yi nga bokk nekkal ci jotaay bi sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Souaïbou sëriñ Cheikh Say moo ngi nii toog sëñ Maodo moom it lii ma wax ci magam ji valable ci moom mu bëgg ñiy liggéeyal sëñ tubaa jàpp leen te di leen jàppale sëñ laat ñiy liggéeyal sëñ bi rek ay xaritam ñi bëgg sëñ Touba rek ñooy ay xaritam te noonu ma ko waxee ci moom la dale bokkam yooyu mu dendal Serigne Sadikh Mbacké dugg si na léegi. moom sëriñ daam abdourahman mbakke ñu gën koo miin ci sëriñ daam atta bërki démb bi nuy waaj màggal gi waxuma la bisu màggal ni mu def ak man waaye bërki démb bi nuy waaj màggal gi daa am ku mu yónni kooka woo ma yónnee ma lool sama màggal mën na cee defaru ba des sëñ sa déex mi toog te am na yu ko war Tuuba parce que nit la ku am lanteeg waa adduna bi ñépp di ñëw ci moom am ay frais yu ko war mu dem ba màggal des cinq jours mënoon naa fàtte yambar mu mel ni Saliou Samb waaw dem ba màggal des juróomi fan Mbàkke ñu yónnee ma som boo xam ni lu ma bëgg a def mën naa ko ca def ndax som ba yegg na ci bu dee ci olof la ñuy wax olof bu jógee ci téeméer ci junni la jëm bu jógee ci junni cee ba ca des la jëm te som ba yegg na ci loolu la ku ne xam na la ma wax na kon Mbakke yal na yàlla gën laa man looloo bëgg a man sëriñ Sadikh Mbakke bisu màggal bi ma jógee ci yow sëñ Modou falaa gont mu mel ni ku fàtte la mu defoon ak man teral ma ba àdduna sépp di ko waxtaane loo xam ne nag bu lawee tiq la foo toll dangaa war a ñaan muy law law yi moom teraangaam a ngi law di nu tiq te li mu gën a bañ sëñ Sadikh moo gën a méfiyé wu sëñ Basiru moo gën a méfiyé wu ci àdduna bu la joxee dara doot nangu nga jot ko parce que jërëjëf lay bañ waaw koo xam ne day def te du nangu ko wax jërëjëf mooy sëñ Sadikh mi bu sant rek desee mu lank ni bu ma kenn jox téléphone waaye bu jëf jotee mu fexe ba nga jot yàlla na yàlla yëkkati la ci barkeb samaam Cheikh Ibrahim Mbacke ma mottali ji woon jéegooy borom Touba yi ca Gabon waaye barkeb Cheikh Salim Mbacke mi nga xam ni moo fees ci sa bi maa ngi nuyu sëñ du Khadir Mbacke mu baax mii ma jàkkaar lool di murit saadix di doomi murit saadix bëgguñu nag jàppuñu moom tamit lii sëñ Bas wax day dëgg ñun bu fekkoon dañoo nekk ci yoonu sëñ bi te ñoom ñii sant Mbacke bu ndajeek ñoom ñu ñooruñu wala ñu tege ñu ne duñ bàyyi sëñ bi waaye dina metti ci ñun lool ndax ab sàcc rek a bëggut ko wéyee te lii ñuy def ñun ñoom lañ koy defal bu ñu xëyoon taxaw sigi ñu ni da ngeen bàyyi dañuy bàyyi. kon li ñuy def ñoom la ñuy defal ñoom saa bu ko apprécier moo gën junniy nit yu jóge fee apprécier ñu parce que ñoom lañ koy defal ñoom ñii sant Mbàkke la ñuy liggéeyal na sëñ Jili mii fu mu dajeeg yow du dem te noppi woo far moom du jóg te noppi li ngay def ci sëñ Tuubaa te bu la gisee def na la ni boppam fi saa si jaxasoog yow te yëg gi rek balay sa doyoon na jàppin wépp yëg nañ ko yal na yàlla bàyyi la fi ci barkeb yaa xafaaru zunoob kooku nga xam ne borom Tuubaa ko yar sëñ gaawaan nañ ko tudde sa way jur wa di murit saadix yaag sëñ basiiru sarak ju baax ji dama koy faral di wax dama naan ñun ñuy wax ñëpp nag war na noo delloo droit d'auteur sëñ Modou Mokhtar nag sëñ Modou Mokhtar lii ñuy tuddee léegi nga xam ne ku ko def ñu ne da ngaa kennal sëñ Touba ba nga koy def tele yi bariwul benn la woon 1987 la ma may sëñ barke Xaadimu Rasuul 87 du tey bokkul ak màkka ju yomb ji bokkul ak màkka ju yomb ji de 87 bokkul ak màkka ju yomb ji màkka ji yi ngi xew moom ñëpp dem nañ ci waaye booba booba dem màkka du ay caaxaan de 87 du léegi kon Mbàkke yal yàlla yàggal seen taxawaay may nuyu sëriñ Xaadim mbakke mii nga xam ni boo gisee ma mujjee ko ci ñi sant Mbàkke mooy boroom kër gi di doomu sëriñ Abdul Baax yi moom sëriñ Masamba yi sa yi sëñ Xaadim ñoo ngi lay jox cër bi nga am yépp li ma ko nuyoo léegi ku reconnaissant la benn yoon lañ ma sa giseen tey yàgg na barab la ma waxtaan ba noppi mu jàpp ma ñaanal ma bàyyi ma ba dem bi ma ko nuyoo léegi ci biir jàkka ji la ma wax ni ñoo nga gëj a gisee ca géejawaay kon lii ma wax ci bokkam yu baax yi moo nekk ci moom jàpp suñu jëmm ju xeewu ji ngir jëmmi borom tubaab mi ñu jóg di ko liggéeyal kon yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay barke maa ngi nuyu bu baax Baye Cheikh jën mi ak Baye Jaaja Bay Baye Jaaja wax naa ko léegi léegi la koy nettaliwaat sëñ bi ñu ma njëkkee indi Kébémer ci conférence bu mag ndeysaan këram lañ ma dalal ci moom bi ma duggee ci kër gi rek laa moom kër gi xam nga mbay la sant ma sant Samba damaa dugg rek mu attaqué ma comme kalam laa ñu da ñu mel ni ñaari moroom mag moom nga xam ni kër ga wéetuma ma fa benn minit damaa dugg rek moom kër gi ndax li ma sant sàmm muy mag waaye di mag mu baax mu yiw yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay sëñ Dan sëñ Mahmoudan Fall ñoo ngi lay jox nuyoo bi jëm ci bokk yëpp di nuyu ñiy sant kunta di ay sëti sayyiduna Muhammad di jabootu seex bu Muhammad ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu sëñ Abdul baaxiloo Lo mi ma dendal nga xam ni sëriñ Modou Lo Issa mi bokk ak sëñ Masamba maam yi kii wenn way jur moo jur bàyyam bàyyi may ab xalifaam tey sëñ daam bale loo ñoo ngi ñaan yàlla yàggal taxawaay bi sëñ Modou Lo Issa maamam rekk ma Masamba bi muy nuyu sëñ Tubaa ci gànnaar ab a nekk ci biir bi mu téye ko jamono bi mag ñi dem gànnaar ñëpp xam nañu xewoon karekat yi dañ daa kargaañi sëñ bi wax borom darul moo mooti maami ñii ni ko daa am gaal gu gaal sangam nanga wut fare bu ma ko indil maam noo di seet sëñ Modou Lo Issa maami kii ni ko mën naa koo yóbbu mu ni ko déet yéen loo ngeen sant te bokk sëriñ bi ngeen yéen sëñ bi alxuraan la leen def loo sëñ Modou Lo Issa ni borom daaru yaa ma gën a bokk ak moom fopp te ba nga laxasoo ba nag ba nga nag ni bàyyi woo jox ma ma yóbbu lii moo yóbbuloo sëñ Modou Lo isa gaal ga sama bi ko karekat yi karee ci diggante Sénégal ak Gambie rekk sëñ ma Samba Dia da leen ni li ci sama jibade maa moom waaye gaal gi moom ak ubbikoom da ngeen may rendi ba noppi ndax ca borom tubaa la jëm fekk biñ ko karee jam nañ ko xeej bi ba noppi mu ñu làmb li ci jibaam jël ko bàyyee kook gaal gi sëñ Modou Lo isa li mu wax borom tubaa daf ni ko damaa xam ne bu ma génnee xeej bi sama yërey biir yi génn te kon du ma yegsi moo tax ma bàyyi ko ci téye ko benn loxo téye gaal gi benn loxo Sëñ Tuubaa moo rocc xeej bi dugalal boppam loxoom ci biiru sëñ Modou loolu Issa delloo delloo yërey biir yi sama am defal na loolu Sëñ Tuubaa damay woon naa la nuyoo loolu rek waaye ci yonent bi lañ ma wax loo sallallahu alayhi wa sallam ki gane woon jamono bu guddig dimanche jëm fajari altine di fukk ak ñaar ci rabiul awal fajar di waaja xar mu ni cëpp ci kaw suuf si sëñ tubaa nee bi mu nee cëpp à l'instant daa am lu takk sëñ tubaa nee na leer gu takk goo xam ni ku taxaw màkk da ngay gis pareb xaysar bi ci romb ci itali sëñ tubaay wax de barki dem rek maa ngi koy nettali fi barab ci aslem yaakaar naa sëñ bëgg Saliou mi mu ngi fa woon ma ne leen bi sëñ Tuubaa waxee loolu de nit ñi dinañ xalaat bi boo ko firee ndax alazina yuminuuna bil ghaybi wa yuqimuuna salaata moo ñuy boolee ci gëm li sëñ Tuubaa wax mais boobu nit koo xamante si nii nit kese nga te yor xel di nga xalaat ku taxaw Asie nan lay gisee pale bi ci Rome ci Europe di ko xalaat waaye tey ci leeru Sayyiduna Muhammad la yàlla sàkk may tubaab bi mu def xereñ goo xam ni da ngay wax appel vidéo fii ak Kaaba ga te moo gën a sori Makka ak Rome kon bi borom leer gi wàccee li sëñ Tuubaa wax mën naa ne satan hina wulida à l'instant sëñ Tuubaa nee na satan takk na à l'instant hina wulida lu takk sëñ Bàmba mu ni déedéet xaar leen ma wax ki juddu ba pare door a wax li takk xayrul nabiyin xat badaa sëñ tubaa du tudd njool màkka te julliwul ci moom mu ni salla alayhi man hada na julli ci moom ka feesal ka jubal fu aaduhoo dënam ba bil xikami ci xam-xamu xikam léegi nag lu takk nuurun azimun xat yara bihi xusuura xaysara luy tax gis paleb xaysar kuy gis paleb xaysar bi mu ni man kaana fii umil xuraa ka nekk ca ndayu réew yu ndaw ya ca sibhu jaziratul arab boo jàngee géographie en arabe Makka mooy sibhu jaziratul arab presqu'île comme ni Dakar mel la Makka mel la la jaziratul arab mel léegi nag ci biir presqu'île bi dafa am dëkk bu ñuy wax ndayu réew yu ndaw yi mooy umul xuraa fuy foofu sëñ Bamba mu ni makkata xayrul xurumi alalladi julleem ga wulida xayra waladi wa xayra walidin bi xayri baladi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa kan mooy ki ngay wax mu ni ki may wax bi muy doon li mu doon aadama amul ki may wax bi muy doon li mu doon kii ñu naan mooy sunu maam amul hazal aminu minal mawla nubuwatuhu xidman wa aadamu fi salsaali xat lubida nubuwatuhu xablal baraya xadin zalat lahu shabqu hiinal jaddu fi tiini la anta allazi ontiita xidman nubuwatan wa aadamu baynal maa'i wa tiini yan jali sëñ Tuubaa aadama amee yàlla bu nee sujootal leen ko du aadama du gaaña ñu ko kanam mu ni leeru njool màkk ga ca ndiggi aadama séddalekat yi duñ ma baal tuuti ñu sant mbay dama leen ñàkk waaw ki ko séen te bëgg ci ñàkk naa ko <laughs> ki jot bay utiliser laa gën a ñàkk bu dee mbay la sant maa ngi nuyu maam làmp mbay ci sama kal yi la bokk nan ma baal tuuti rek du yàgg ndax yaakaaroon naa ni 18 heures dinaa fi génn jëm ci barab yi ma war a dem Tuubaa na kii nuy màggal gane jamonoom tey bi yàlla tegee aadam ni su leen ko aadama taxut ñu ni mbàkke lu tax mu ni leeram nga ca ndiggi aadama moo tax yàlla ni su leen ko mbàkke bindal mu ni li nuurihi sajadat am laa ko mursilihi lil jaddi aadama nuuran fihi munkatima sallallahu alayhi ka mooy iblis aba wastakbar wakaana sëñ Tuubaa na ba ko iblis naxee ba mu def yooye mu taxoon yàlla wàcce ko sëñ Bamba na daa jéggalu yàlla ba dàcc waaye ba xelam demee ca kam gis ci bunti àjjana yépp turam mu tudd ko ca la ko yàlla baal ñu ni Mbàkke bindal mu ni bi jaahihi faada bil gufraani aadamu min bahdin hibaatin min anhaarin wa jannaati sallallahu alayhi wa sallam kaw suuf sëñ Tuubaa nee na saa yu iblis xëyee ndax inna seytaane liñ seeni aduwun mubin saa yu iblis xëyee dana songu aadama ngir def loo ko bàkkaar waaye aadama mënatu la def bàkkaar daa war a doon maami rasulullahi bi jaahihi lam yamil li zanbi aadama mus lahu daahu lain min qad uzima sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa ndax aadama rek la mu ni déedéet ñoom ñépp ku ngeen ci déggal kéemaan na nga xam ni Seydina Muhammad ko abaloon lakal mu'jizatul xaari xaatul lati biha atat xablu min xayril miraj jumlatar rusli sallallahu alayhi wa sallam ku ci mag mu ni noohun sëñ Tuubaa nee na ba mu waxee la tazal alal ardi min al kafirina dayaaraa sëñ Tuubaa nee yàlla defar loo ko gaal bu gaal ga teeree 82 personnes yi ak moom génn c'est grâce à Seydina Muhammad Yankooba ñeen fukki at la la bët ya gëmm ndax jooy jum jooy doom ja sëñ Tuubaa nee na su ko yàlla delloo gis ba c'est grâce à rasulullahi ñu ni mbàkke bindal muy najaa bihi laahu nuuhan bi safinatihi wa jaahu kafa yanquba albaliyaati najaa bihi laahu nuuhan bi safinatihi wasina yanquba ama asbatu kaama sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa nee na ba Namrood mbaqee maam Adama bàyyi mu jëm ci sawara si bu sa borom ne xul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaamun ala ibrahim c'est grâce à rasulullahi bihi xadat naaru ibrahimu baridatan maa salaami fa haza xarqu addaati bii qadat naaru ibrahimu baridatan maa salaami wa min di dawal sëñ tuubaa nee na ngelaw nangulu ko ci darajey rasulullahi la ko war sëñ tuubaa nee na yonent yàlla daawuda da daa jël weñ fer di ci liggéey bi koŋ ak i dàll di ko sol waaye waaye nooyut ci loxoom ci dara darajey rasulullahi la ko tasxiir bii ulina li daawud al xadidu bii hawa suleymaana tasxiiran kama fahima sallallahu alayhi wa sallam sëñ nee na yusufa ak génnam ca teen ba dem ca pale ba ñu adapté ko c'est grâce à rasulullahi génnaatam ca kaso ba dem ca dem ca pale ba doon gouverneur réew ma ba noppi di yonent c'est grâce à Sayyiduna Muhammad ñu ni Mbàkke bindal mu ni bil muntaqa axrajal ma naanu yusufu min jubbin mooy teen ba wa min kaydi man anha tadaa wala ma kaso ba bil Mustafa axrajal ma naanu yusufu min sijnil matini wa min tilkal xiyaabaati sallallahu alayhi wa sallam sëñ na 40 jours la yoonu sa def ci biiru jën yonent yàlla yoonu sa yàlla génne lu ko yow ma mu dem ca tefes ga yaram wa rocc ko yàlla saxal garab mu upp ko mu dellu na mu meloon sëñ tubaa nee na c'est grâce à rasulullahi wa saahibu nooni lil mawla tajaa fanaja bil muntaxa fatanaha kulla qummati sallallahu alayhi wa tubaa mu ne Moussa bu jàllee xar baharu xalsoom jàll firaw na lab c'est grâce à rasulullahi Isa suñ ko dàqee ba war koo jàpp daaj ci croix bi yàlla remplacé ko ak jëmmam nirul li ko keneen ñu daaj ko Sëñ Tuubaa ne c'est grâce à Sayyiduna Muhammad bil Mustafa bahru Moussa kaana mun falixan fan falaxa ja ca alquran kama bihi ruuhu Isa li sama isama alayhi wa mu mel ni waxtu wi sori na ba noppi te ñuy màggal guddi ci guddi gi dugg ma wax la li sëñ Tubaa wax ci vey vey bi nii guddi gi ca jësbul xuloo sëñ Tubaa bunt bu mu dugg ci jës bu daa julli ubbee ko noonu da xam ni buntub nangam la bi muy ñëw ci buntub guddi gi daa julli ubbi ko pare ci guddi gi ubbi buntub juddu bi julli dinaa la wax ñaari julli yëpp su waree tudd yonent bi mbaa mu tudd ko day julli door a avancé salli wa sallim sarmada ala lazi xatur rida bi xat wulida fiha mudimun masami mooy jullib guddi gi jullib judd bi mooy salli wa salli man ala man xaaza mawlidan jala li gayrina zawil xila wal tataxabal xidami laylatu mawlidi nabi moo topp ca julli gu mujj gu njëkk ka laylatu mahwi riya bi Sëñ Tuubaa nee na ci guddi gii la fi yàlla jëlee way sikk ya ci lañ leen fare mahwi riya bi laylatu mahwi temps bi sonn te doo jariñu ci guddi gii la jeex ku sonn da war a jariñu wa tuhri zi taazumi jëfkati bàkkaar yu mag ya ci guddi gii la leen yàlla laabal wa tuhri zi taazumi biha najaatu wal falah maa sururi wan najah ca la nu mujje ca la nu texee ca la nu béggee ca la nu rawee bi xaar rabaaxu ca lan tonowoo ca lan bénéficié woo wasalaax ci la suñuy mbir yéwéne ma am difaa yi ne xami loolu ragaloon ci la nu ko yàlla dàqale na am na ay xar baax nag yu fe yu feeñ ci guddi gi xawat xawaari xab badal ani ruwaati sabatat ka misli naarin atfiat ma am mi xaa i daqami seen dex ya fel na keroog seen taal ya fay na kamaj te mës la fay alfa amin lii la sëñ Tuubaa wax mawliduhul muazzamu juddoom bee gën a màgg ci juddu yi mubaarakun moo ci gën a barkeel mu ka moxtaramu juddoom bi lan gën a wormaal ci juddu yi temps hoo màggal juddu bi nag yan xatimu lu war la ala zawi taxaddumi ku jiitooti mbooloo doon jullit mbooloo ma topp ca sa ginnaaw sëñ tubaa nee na màggal guddik juddug yi lu war la sañoñ topp la te moom kat ah yaytu mawlida nabi min assasine sasin la sëñ mbàkke morant sali dem assasine fekk moo jiite mbooloo mi première année jiitee mbooloo ca la ca ca la gàmmu kon lim digle moom ci la ne tanzimuhu yan xatimu ala zawi taxaddumi ku jiitooti rek da war a màggal sañoñ topp la moom at mi mu jiitoo ci la màggal moom Cheikh Amadou Bamba ah yeytu mawlidin nabi min assasine sasin la sëñ Mbàkke Moran Sali dem assasine mu màggal gàmmu bi waaw waaw xanaa xamoo judd bi bàyyi jaaja damaa bëggut a waxtaan lu yàgg ndax li ma li ma nekk ci yoon damaa war gaynde waaye kon dinaa la wax lu bari ci màggal yàllaa njëkk a màggal judd bi judd bi yàllaa ko njëkk a màggal gis nga aboo lahabin yàllaa ko tëkku ci aw saar lu nit gàtt gàtt alluwa jàng sabat ya daa abi lahabin am déet aboo lahabin moomu buñ koy mbugal ba altine jot dañuy teggi waaw yàllaa ko njëkk a màggal de gàmmu yàllaa ko njëkk a def yonent beet def na ko maa ngi ñëw waaw ñii nekk ci suñu réew mi naan gàmmu bi daal seen borom mi leen sàkk moo njëkk a màggal juddub rasulullaay ndax sooy batun jaamu aboo lahab la woon daa nampal njool màkk mu nangu aboo lahab ni ko goreel naa la doonatoo sama jaam ca altine jooja rasul lay ganee jamono bëccëgu altine boobu fi mu toll aboo lahab liñ koy mbugal yëpp altine jotee dañuy aj yar yi bu dee dañ ko doon lakkit dañuy génnee buur yàlla may na ko tax fiifal azabi gadan ci jëpp altine ngir njool màkka xanaa loolu màggal juddu bi la yàllaa ko njëkk a def moom sayiduna muhammad dalaa woor altine suñu ko laajee lu tax mu ni ci laa gën a jamono kon màggal na ko ku ko màggalaat ci ginnaaw ñaari màggal yi nga ko màggal sëñ nag ni yi tanzimuhu bi sunnati màggal ko ci sunna màggal ko ci sunna nag sëñ Tuubaa nee na yaquuduna moo nuy wommat lil jannati jëme àjjana bi his ziyaadul mi nati ci la suñuy xéewal di dolli ko ku koy am sëñ Bamba mu ni li muxlisin muazami daal di daal di wax nag lañu ñu ci ku ko def fa may yuazim mawlida ku màggal juddu nabiyina babil huda suñu yonent bi nga xam ne mooy buntu njub falaa yu xaasa bu xadaa bàyyi jaaja pencum yàlla ñaar a fa am peese yi jëf bu yu baax yi watee ko dem fu baax fa bu yeneen ya watee mu dem fa ca des sëñ Tuubaa nee na boo màggalee juddub rasulullah duñ peese falaa yu xaasabu waaw si Amadou Bamba ko wax te ay waxam alxuraan la. addi waaw ay waxam du dañ de. addi yonent bi. sallallahu alayhi ku ko jox addi yonent bi tàggoog ñàkk. nañ ko jox addi yonent bi. sallallahu alayhi wa yu yow say balance dañ koy lem yow mi doon màggal juddum rasulullah jox leen ko addi Seydina Muhammad ku ko jox addi yonent bi tàggoog ñàkk. ana lam jug leen ah xayril baraaya ahmada sëñ Tuubaa na ku màggal juddug ki gën ci ñi yàlla sakk ahmada te tuddoon ahmad fakka sayidin sayida mer nga ne ku fekke ku fekke badal mer nga ne sayid ya teewe woon badran bi xëyri wahami doy na nag loolu xam nga ku fekke badar ku fekke badar dootoo defati lu naqari yàlla sëñ Tuubaa nee na ku màggal juddu bi mel nga ni ku fekke badar fakka sayidin sayda badran bi xayri wahami waaw dafa am ci saaba yi koo xam ni ab naafiq la woon bu yonent bi masaana tëral plan de guerre ba noppi moo koy bind yónnee ko Abu Sufyaan ak waa Màkka noon ya mu mas koo def ci létti ay jigéen saaba yi jàpp jigéen ña ci diggante Màkka ak Medine bi ñu leen sonalee ñu ni leen ñu ni ñu diw moo bindoon lii pour ñu yóbbul ko Abi Sufyaan muy plan de guerre yi yonent bi doon lal mu ko yónnee noonam yi mu war a guerre ñu daal koy indi ci penc mi yonent bi toog ñëpp toog ñu ni ko ndax yow yaa def lii jigéen ñi wax ni yaa ko def mu ni waaw maa ko def rek naa Omar xam nga tàngoor wa mu ni bërëg jaasi ji jóg jóg ko bi mu xàccee jaasi bi yonent bi ko Omar wàcceel sa loxo mu wàccee mu ni ko kooku daa demoon Badar dootu def lu naqali yàlla xoolal lim def ni mu toll kooku daa demoon ba dara dootu def lu naqar yàlla sëñ Tuubaa nee na boo màggalee guddi gii yàgg ña demoon ba dara yam nee ku ci def un franc sëñ Tuubaa nee na un franc kullu man anfaqa fii mawlidihil musarrafi maalan bi xayri sarafi alal te gaspillé woo bi xayri sarafi walaw bi xadari dirhami donte ab dërëm nga ci def waaye màggal judum rasulullaay moo la tax a def dërëm boobu fa innahu ki def loolu kaman xadar mel na ni ku ni présent bi yonent bi wootee ba Badar mel na ni ku ne président ku ne président parce que ku ne président rek yàlla baal na la dootu la topp mooy yawmun bihi xat xafaraa zunuba man xat xadaraa xitaaluhu rabbul waraa kabiratan kalamam ku ni président bi yonent bi wootee yàlla baal na la te dootu la topp sëñ Tuubaa na boo defee benn dërëm bàyyi jaaja ngir màggale ko juddub rasulullaay mel nga ni ku ni président kulu man faqa fi mawlidihi musarrafi maalan bi xayri sarafi wala bi qadri dirhami fa innahu kooka def dërëm bi ci màggal juddub rasulullahi kaman xadar mel na ne ku ni présent yow ma unay ni bisu unay wa sabar te mu muñ tartar ya fa amoon wa yow ma badrin ak su badar wa nasar te mu dimbali xayril wara mu fàq ni sallallahu alayhi wa sallam doy na nag sama yéene mooy waxtaanal leen ba ngeen kontaan waaye am na lu ma tënk li ma tënk du dara lu dul kàddu al xurul xurulun maalam yatakallam la arab yi wax arab yi nee nañ gor su ne gor nga boo waxagul maa ngi wàcc Cheikh Amadou Bamba damaa yaakaaroon ni fii 18h dinaa fi génn pour man a régler li ma diggee yàlla dogale ko nii te nun nuy ay murit nag waaw bëgg naa remplir li ma waxanteeg nit ña sama moroomi gor ya waaye du ma ñëw ba fii di dem te sama kàddu jógul nii ko yàlla dogale la ma neexee sëñ tubaa jàngalewul nangu dogalu yàlla sëñ tubaa lu yàlla dogal mu neex la la jàngale ku fa yeggagul yeggagoo ci jàngaleem ma sëñ tubaa li mu jàngaloon mag ñi mooy lu yàlla dogal mu neex la wax naa ko barki dem si télévision bi ñëpp di ko xool ma ni leen Cheikh Ahmadou bàmba bi tubaab bii ñëw yi mu doon def dañu ko bismillah bu yàlla dogalul mu lor ma duma ma lor waaye men nu mer nag duma la ko ci mere bi mu neexee yàlla ba mu yegg si rek la ma neex sëñ Touba moom nee amul woon droit mere ñiy jëflanteeg moom parce que lu ci yàlla nanguwul mu yegsi du yegsi kon lu ci yegsi yàlla la neex te bi mu neexee yàlla la ko neex moo tax bi mu nee afawtu anil adaa yi daa mel ni dañ koo laaj ñan ci mu ñu xees ñu ñuul ñi pour lan li wàcc man nafaahum li xëyri sarmadan lastu atfahu la ma ca tegoon nag mooy ba mu waxee yàlla ni ko baal naa sa noon yi sama noon yi ngir sa jëm yàlla ni ko waaw Ahmadou Bamba dani ko damaa bëgg nga baal sama soppe yi ngir sama jëmm yàlla ni ko baal naa leen lii kese la booy bëgg sëñ Tuubaa yàlla di la baal soo koy doyloo yàlla di la baal su feesee saxool nga dem àjjana ndax yaqulu lil jinaani man ahaba man lam yuhibbu ni li naari kabba yàlla wax ca Ali Imran sama pénc mi bu ngeen fi yegsee yii kanam dañuy weex yii ñuul yu weex yëpp dañuy tàbbi ci sama yërmande sëñ Tuubaa nee na boo ma bëggee booy dekk dinaa fexe ba sa kanam weex wajhu lladi yuhibbu nii yabyadu yawma wujuhi suwadaayi tabya yéen seen maam ku ko def moroom daa teewul amul moroom ci lislaam bi Cheikh Ahmadou Bamba amul moroom ci lislaam bi rakkam ji ma ñu doon tudd fii léegi sëñ Massamba rek bu génnoon kër sañ tubaa fu mu dem di seen kilifa ci diine te bu gisee sëñ Touba banki tànk sëñ tubaa amul moroom amul jenn doomam ju ñuy présenté yow mal xiyaam benn góor yàlla indi doom ju mel ni moom Cheikh Saliou mi fi mujj rek yow mal xiyaam góor góor du fa présenté doom ju mel ni moom doom ju toll ni Cheikh Saliou Mbacké benn góor yàlla du ko andi yowmal xiyaam seen maam amul moroom ci l'islam bi loo gis nag daa am kenn footballkat yi am na ku yor ballon d'or mbër yi am roi des arènes l'islam bi benn borom Tuubaa la am salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ngeen baal ma xaq sëñ lool sëñ Bass moom daal boo nu gisee boo nu gisul ñoo ngi ci say tànk di wax lu baax di ko lijjanti barke borom Touba. Mhm. ab sëtam dugg si nii waaw di doomi Cheikh Moustapha Massamba Cheikh Moustapha Minta Amar noo ngi lay ziar Mbacke Yaram sëñ Abdou Khadir jërëjëf sëñ Abdou Laat Say jërëjëf maa ngi nuyu monsieur le préfet corps diplomatique bi toog maa ngi leen di nuyu man dafay bu ma tàmbalee waxtaane sëñ Touba damay tàkk ba fàtte noonu la ma yàlla binde man ma tàmbalee ci mag bi rek dootuma fi nekk waaye yéen kenn warta nuyu kenn bàyyi leen monsieur le préfet yow yaay président de la république ci jotaay bii nga ànd ak ay ministre conseiller ànd ak ku nekk présidence maa ngi dégg ñu koy tudd ànd ak ministre conseiller kon mel na ni président de la république ñëw na ci suñu jotaay bi maa ngi leen di jox cër bi ngeen am parce que yàlla moo leen cëral te lii ngeen téye sénégalais yépp ngeen ko téyel yàlla na yàlla kàttanal leen ba ngeen yeggalee ko nu kawe seen njort bi xurmati rasulillahi barke Seexul Xadim barke guddi gi yéen corps diplomatique bi ànd yëpp maa ngi leen di jox cër bi leen yàlla jox li leen wan ni seen cër bi neex na ma salaamaaleykum. Samb jëf sambeen bu mel nii day bariwul. ba sàmb Samb gama xamande yi dañoo wàññi wan jàkka ja yokke ko làmb ja. yàlla baaxe la nag dimbali la. ba ngaan sàmm googee nga dëkk moom laay tooñee naan leen yéen yéen a wàññi wan jàkka ji yokke ko làmb ja waaye yow mii macha allah Serigne Saliou ku ne bëgg na la ngir Serigne Touba jërëjëf sàmm sërif bi sant Haydara sërif bu ya maa ngi lay jégalu danga maa féete càmmoñ may xool ne waaye yow laa njëkk war a njëkk a tudd ndax xaddimoo xuraysin te yaay dereti Sayyiduna Muhammad kii maam ja rek lay wecc sërif yàlla na yàlla yàgg baayam Kébémer la nekkoon sërif si bi sëriñ Basiru mais xam na ko ndax wëllëreew waay juram la woon mu yóbbul koy teraanga keroog ba muy tàggoo Kébémer man mii la woolu ma ñëw mu ne ma demal ca jumaa ja nga wax am sata ci rajo jumaa ji nga tàggul ma waa Kébémer maa ngi dem ca dootuma delsi sërif si bi moomu am bu buya